Koulibaly mii moo tax. ay ñaar ma seen seen partenariat bi kañ la. dëgg la parce que. koo hmm. xamante ni ngay xëy di liggéey si bariwul. <laughs> dama hmm. fa nga mën. <laughs> yàlla na yàlla na continue <laughs> yàlla na wéy. naa la humilier nag ci wéy. xam nga loo xamante ne ADFM ko bi sax dañ ko koo imposer. donc loolu la den nuyo ne len sénégalais yi <laughs> ñaanel leen ko yalla rek mu woy tàmbali mën nako dal <laughs> Abdou Gueye nee ma ma sœur rek nga am amul finition amul finition <laughs> mais tay yi maa gor nak mm. di wax ni comme niñ ko tamé di def rek mm. buruxlu mm. ak rogojeeru ñu ngi ñew ci tardé lañ dëkk ñi ngi ñëw ñu ngi mais ci fere lañ dëkk rajo cag cag bee ko sonal roga jeeru waaw buruxlu moom buruxlu <laughs> buruxlu bi ay calendrier moo chargé <laughs> donc ñu nuyoo noonu rek xam ni c'est toujours dans la bonne humeur oui que ADF impôt sa fait mm-hmm. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xam ne ñoo safoo duñu seetaan mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy tiital suñu toogee ci plateau di wax waaw ah, dëgg la dañuy tiital walaay walaay walaay faites attention ñëpp dañ ñaanal mm. te duñu bëgguñu def comme Euh, mu sell mi mhm. mu torox mi mm. dugg na parce que aussi euh, li tax ah, mais addition ay la ko sama nuroo la waale bi absenté démb dafa am lu ko ñor mm-hmm. parce que naufrage du Joola daf ko ñor mm-hmm. Mm-hmm. naufrage du Joola dépassé na une minute de silence naufrage du Joola dafa nekk moment bu important dans la vie de not de notre pays qui est le Sénégal mm-hmm. mm. parce que guddi googu rongoñ yu bari rongoñ tuuru na bom mm-hmm. mm. ñu xam ni waruñu fa doon toog di mm. wili pande ay nit wala di créer ay ay mbir yàq def dañu waroon nekk di jaamu yàlla di wàcce kaamil mm-hmm. di sone nit ñi di wàcce kaamil loolu mooy innovation bi ñu ci waroon def parce que nous avons maire de le 26 mhm. septembre mhm. nga allons innover PM mhm. après nous avons wax signification PM bi PM innover journée de récital mais journée de récital une journée de récitation jeune de mmh. récitation <laughs> mmh. moo tax démb ñu jéggalu mbokk auditeurs yi wax leen lu tax mmh. sama binôme nga xam ne suma solo bleu ciel bleu ciel mu sol bleu ciel mais lakos nga laal moomu laal éternel kii euh, dàllam yi éternel dàll ya euh, amul marque dafa ñàkk dafa ñàkk dafa amul dëgg la su amoon su amoon. Mhm. du sol dàll yi. bu ko fi sax amu ko. bu ko fi moo tax moto ñëwul. dëgg la la wàcc fee ci àngal ba. dëgg la yow grand ku bugg nga. du dëgg. Mhm. moo tax démb mu toog jàpp ñàmbura. Mhm. nekkoon nag ca mémoire ca ca cimetière ya. di liggéey donc arrangement woon na euh, ko xoolal ba lii rek xoolal xoolal xale yi di koy. <laughs> wàcc leen tuuti xoolal. génn dàll bi ah, ah, gaal bi dàll bi génn bu baax. nit di topp ba na a feeñ dàll bi. nit kenn du ko topp ba mu sës. <laughs> mais xool war leen war daal adus. la adus lacoste la laal. adus lacoste kii day waaj nekk député man nekkuma député. war daal bi cum pour hmm. salaire yi. yu lii. gis nga lacoste la de. nga laal. waaw waaw mi la. waaw ori la. man sama a bi bee. man sama bopp bi daal la ba tey. bii yilaax mi xoolal Saalum daf jël leen Doudou daal yi exactement ni mu mel bii Doudou daal yi nii la yàgg màggatee mu dem mu dem xaw ma daf ko cirage ba daal yi dongatul jël cirage noonu baaxul yéeg leen tuuti ci kaw bii voilà ña yërmi daal yi bii eh. bii wala bii Doudou booy passé bi. <laughs> dëgg nan la doo diw. waaw Ngoné Saliou boo koy may bii. dédicace à Ngoné Saliou Diop sama rakk ji. nga jël. <laughs> dédicace à Ngoné Saliou Diop. xam nga xam nga Doudou. waaw hmm. demul hémicycle waajul dem hémicycle. Hmm. donc munu fi nekk di lekk. yow yow dimbali kii mu yor yëpp. kii yorul dara. Ah, vraiment ba ma waxee sama déclaration ba léegi dama commencé di leb gars yi dañ may solal ay daal lañ may jox pour suma nekkee député ma fay leen na hmm, bu la njuyee mu ñaaw de bu tamit nii c'est un plaisir de te revoir mon cher jërëjëf yal na la yàlla sàmm jërëjëf euh, maa ngi nuyu ñëpp annonce pour annonce à partir de lundi d'autres me à 13 h oui. pourquoi. une émission 20h Live. Oui. oui. oui oui. wane sama bop. wane noo dootuma xëcc kenn. mukk du nit ñi. je ne. waaw. nekk demal le xamul yow. non ma émission vingt heures. xamul yow sama problème bop? yow du xamoo yow ku lay kaañoo kuy mbalak ay kuy kaf loolu xamul du ci sa problème ah yow xamoo kuy mbalak. non waxal non non da ngay retirer propos. duudu en ligne. mais ma da ngay kaf ba tous les jours à partir de vingt heures. duudu en ligne waaw. sotti si def si la. waaw mais mais mais en ligne bi xanaa euh, bokkul ak treize heures. moom non duudu pour man pour sénégalais. non non duudu en ligne. doxal ndànk rek non treize heures bu la neexee invité ku la neex bu la neex toogal ku la neex. du doon na gis na yow da nga mën génn nga am. ah baal yooyu génn si yooyu nga ne. tuuba tuuba. waaw waaw waaw baal ma ak waaw kay maa ngi woon sa yaa ngi mottali sama xarit bii alaaj <laughs> duur kulibali mu baax mi alaaj duur kulibali mu sell mi vrai sell yow sellantu woo da ngaa sell léegi may nuyu ñëpp xam nga di jéggulu ah démb cag mm. cag ñëw na dégg nga dégg non ni ma <laughs> ni ma bëggee ni nga ma bëggee woon defee émission sax dafa ëpp waaw ah, ndax démb waaw mais mm. commencé si la li man li may li ma nar a wax man li ma nar a wax dëgg dëgg incha allah mm. si bato jola, Joola. ay wa gis nga ki man je vais me retenir. Hmm. pour aujourd'hui hmm. parce que sama live a di lundi. Hmm. li ma nar wax yëpp fi la koy waxe mais yeen bu ngeen nga def non xaa yeen wol na sa bopp ci live man moom fii du fi wax lu bëri. <laughs> parce que suba da ngay live. suba damay live li ma wax si Joola ko wax si Joola. information yu bëri. te ne nga doo def révélation may man dinaa def ay révélation yu ah, bëri si joolaa suba uh-huh. ndax man joolaa mm. dama ko documenté maanaam amul amul élément sonore audiovisuel mm-hmm. wala article mm-hmm. bu ñu bind si joolaa xanaa ma umpale ko rek mm-hmm. bu ma liirul jàng sama entretien mu si mujj def maa ngi ko def ak ki nga xam ni moo njëkk jël téléphone woo autorité yi mm-hmm. ne leen MS mm-hmm. le Joola mm-hmm. a sombré vers vingt trois heures à trente cinq kilomètres des côtes gambiennes kooku xam nga moroon kan mooy la agent transmetteur ki yoroon ki ki yoroon rajo port waaw xam nga port dafa am kii de transmission comme ni aéroport yi di amee kii kooku ko yoroon ñu waxtaan si waxtaan bu doy wax mhm. mhm. mu am ay secret yu bëri yu ma si confié mhm. incha loolu moom lay moom laay def moom ngay lay suba moom bi yóbbante nag yóbbante bor la yow Aïssatou Diop Fall day wax alhamdulillah saa yoo xëyee alhamdulilah rabbil alamin saa yoo nekkee si journée bi neel alhamdulilah saa yooy tëdd neel alhamdulilah ndax xam nga mm. sénégalais yi ma jot xam nga yaa fi joxe sa numéro sama numéro rey ma complètement rekkete <laughs> nga ne leen ku ma soxla rek wool Doudou Coulibaly looloy dëgg nag ah sonn naa de mm. torop torop torop waaye mm. la ma si dégg yëpp deguma ci luma ma naqari alhamdulilah muy audio muy appel mhm. muy message gisuma ci luma ma naqari mhm. li ma si gis yep moy jappal yow mhm. ndax ñom man man man ñom ñoom ma doon wo ñep message lañ mu yoni ci yow